Masaalikul Jinaan këru diine yëpp a fi bokk daje ndax ñëpp seen victoire la set victoire éclatante éclatante du mouridisme c'est une victoire pour pour tout l'islam pour toutes les familles religieuses donc tey chef religieux yëpp ñoo bokku lii lii sagu Sénégal la sagu ku bëgg lu baax nga xanaa ko sa bon ta baaxu waaye ku bëgg lu baax lii neex na la kon këru diine yëpp dinañ fi bokk daje sëñ Muntaxa tàllal loxo këru diine yëpp ñoo bokk liggéey bi lii bi fi sëñ Tuubaay jaar coono bu ne daj na ko waaye tey yàllaa ko faye lii ba pare mu yebal fii sëñ Muntaxa mu war a ñëw ubbil ñu lii te sëñ Tuubaa lu mu bind lu yàgg-yàgg di nga jàkkaarloog moom ba muy wax ni lil Muntaxa wajjahtu fi ndakaaru zikran bihi xat kub kibal makaaru booba xamoon na ni sëñ Muntaxaay ubbi si lii te booba mu ngi fiy jaar ci fitna nee na jubale naa ci dakaar ci biir Dakar xarfu fii la indi fi Dakar fii Dakar fii xolu Dakar boo ko nattee fii mooy centre bi mu ni jubale naa sëñ Muntaxa ci xolu Dakar ngir mu indi leen fa zikkar bu neex mooy xasaa yi ngay dégg